asalaamaaleykum waa Jolof maa ngi leen di ku nekk sa ak sa sant di la delloo sa fay man Khady ngoom maa ne fi présenté benn émission bu bees tàq sàq doxantu fii lay xewee si UD TV dañuy ànd ak yéen doxantu tàllal leen suñuy micro fas yéene waxtaan ak yéen kon nag préparé wu leen surtout yéen sama mbokku jigéen ñi def leen coquette fël-fëlaale ku def la leen sax dina neex ba mel ne na mbay banaanam